manam Ousmane Sonko dina tax ñu xam nit yu bari barke alquranul karim imam Harim busuk. ku no won dina wacce dara jam ba tollu fi billahi alazim ma wedd ko ci manam no Macky Sall day day sul nanan liñ ko liñ deug deug wax bobu moy deug ki manam personnalité amone dignité bi amone lepp jël na ko tek fee xawma ngir kau la xawma ngir lenen xawma ngir bañ Ousmane songo mais en tout cas Karim Bousso ku mo won dina tok ci ap plateau di défendre ak ngor di jël ben sénégalais bo xamné wax deug yalla ci set dong lañ ko xamé mu koy tuumaal lepp luy lu bon man japon nak Karim Bousso mom aduna aduna suñ doon jël wër bi di tek ci loxom bi jël jant bi tek ci loxom manam jappon na ne aduna jépp jaralu ko loolu mais nag Ousmane Sonko bala mu fé joggé wala bala mu fé tok lu bare fé képp ku nekkoon na fiq da nga fé ni ségg la rek day tax ñu mëna ségg nafiq yëpp ñu ngi leen di xàmmee nit yu bon ñëpp ñu ngi leen di xàmmee borom xool yu bon yëpp ñu ngi leen di xàmmee imaam yu nafiq yëpp ñu ngi leen di xàmmee